sunu gan euh, yegsi na di euh, docteur euh, Ousseynou Badiane salaamaaleykum. waaleykum salaam. yow lañ jënk ci ministère de la santé PEV di programme élargi de vaccination fan yi nag seen liggéey bëri na lool ndax ñëpp a ngi xaar vaccin yi jëm ci corona coronavirus gi bala ñoo sori mën nañu xam ndax yëf yi mu ngi ci yoonam déet bu dee. li OMS war a jox Sénégal ak li Sénégal di sàqul boppam ci yeneen réew ci mel ni Chine ak ñoom seen fu euh, xabaar yi toll ci ñëwug vaccin yooyu nga xam ni nee ñu normalement weeru mars war naa yegg si. waaw euh, jërëjëf Babacar donc euh, ñu ngi nuyu auditeurs yëpp ak téléspectateurs u TFM yi li nga wax dëgg la ñu ngi ci waajtaay bi donc fi mu nekk nii di ñu annoncé woon ne fii ak mois de mars bala moo jeex vaccin yi dina ñëw loolu ñu ngi ci am nañ déjà ay information yu jóge ci initiative bi nga xam ne dañ cee bokk ñuy muy COVAX ñu annoncé nañ ñëw ne euh, su lépp jaare yoon bu dee producteurs yi respecté nañ seen euh, promesse yi ñu leen jox dinañ jox Sénégal euh, lu toll ci un million pratiquement trois cent million trois cent mille doses Euh, fii ak euh, mois de mars. bu mhm. des euh, na tamit boobu OMS war a joxe di AstraZeneca. Mhm. indi na tuuti xel yar fu ci mel ni Afrique du Sud nga xam ne ñoom am nañu un million de dose yu yegg si foofu waaye dañ ko bloqué ndax boroom xam-xam yi nekk Afrique du Sud dañoo jàpp ni AstraZeneca boobu di xeetu vaccin boobu. taxu ko aay lool ci xeetu doomu jàngoro bi ñuy wax variant britannique est-ce que xibaar bi bi ngeen ko jotee itam variant sud africain variant sud africain est-ce que yéen loola dafay euh, daf leen di arrière loo yéen itam ci vaccin boobu di AstraZeneca non de toute façon pour le moment variante boobu amagul fii nii Afrique de l'Ouest donc ñëwagul Sénégal donc euh, bi fii bi fii nekk mooy variante bi njëkk bi nga xam ne mooy bu bi ak bi fi feeñ temps yee muy variante britannique bi te bareegu fi donc vaccin bi efficace na si ñaari variante yooyu donc euh, sud africain yi ñoom nee nañ bon pour le moment sax jëlaguñ décision parce que yooyu ay résultats préliminaires la donc euh, loolu lépp ñun ñu dañ koy saytu di ko di ci ko déglu di xool mais bu fekkee ne changé wul fii boobu vaccin AstraZeneca boobu dina baax pour Sénégal. un million million trois cent mille doses bu AstraZeneca xam nañ lu néew la euh, loolu mooy li nga xamante ne moom mu ngeen di amee ci initiative COVAX foo leen tollu ci yi nga xamante ne Sénégal moo koy commandel boppam ndax xam nañ ne un million yooyu euh, daanaka euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy cas prioritaires yi sax les personnes prioritaires munu leen a waaw li nga wax dëgg la parce que bi ñu xayma li nga xam ne nii moom la cible prioritaire yi soxla Sénégal. Mhm. boo koy xool si huit million cinq cent mille doses pratiquement la toll. Euh, COVAX loolu muy jox du li mu promettre rek mais loolu euh, benn euh, livraison la maanaam mhm. li ñuy njëkk a joxe la parce que normalement COVAX war nañu mën a jox lu toll ci loolu ñu xayma muy huit millions cinq cent mille doses COVAX dina dina dolli. dina am yeneen vaccin yu ñëw parce que comme tamit ni ni ñu ko xamee vaccin yi fi mu nekk nii. Euh, dafa fàttali ni sunu mbokk auditeurs yi nga xam ni ñoo ñuy déglu ne COVAX mooy programme bi OMS di kuréel gi ŋànk wér gu ram ci àdduna mooy programme bi mu tëral ngir mën a séddale vaccin yi. waaw. Hmm. Euh, booy xool vaccin yi fi mu nekk nii ci marché vaccin yi amul benn boo xam ne am na quantité bu doy boo xam ne benn pays mën na ne bii vaccin laay jël rek ñàkk population yëpp mu jeex donc moo tax fi mu nekk nii. li ñu naan taal bu tëw a boy dañ koy uppee boor bu nekk nga koy uppee donc moo tax euh, dañuy def ay jéego yu bari boobu ko COVAX bi la état du Sénégal ci boppam moom ci boppam mi ngi def ay jéego pour amal boppam ay vaccin déjà annoncé nañu ne mën na am Chine def ñu première livraison de deux cent mille doses mais tamit Union africaine tamit dañoo ñoom dañoo lëkk boole seen doole pour aussi ñoom it ñu jéem a mun a am ay vaccin pour Afrique ci loolu Sénégal commandé na fa presque trois millions cinq cent mille doses donc loolu euh, lépp buñ ko boolee euh, ak li nga xam ne moom la ko COVAX di jote ak feneen foo xam ne tamit vaccin mën na fa jóge ak état bi tamit su amee possibilité jënd yeneen yooyu day tax ñu mën a dajale vaccin yëpp pour mën a atteindre dans un premier temps cible prioritaire yi suñ leen cible prioritaire yi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a sonn ci ci feebar bi maanaam mooy ñi nga xam ne nii ñooy liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo maladie mais aussi mooy nit ñi nga xam ne nii dañoo am li ñuy wax euh, dañoo am at yu yu yu bari ba pare ba am li ñuy wax comorbidité maanaam am feebar boo xam ne dafa nekk ci ñoom boo xam ne day tax bu leen feebar bi corona bi dalee euh, faagaagal leen donc ak ñi nga xam ne aussi dañoo seen at dafa avancé donc euh, moo tax fi mu nekk nii dañuy dañuy dajale rek lépp loo xam ne am nañ ko. ci jumtukaay ci loo xam ne vaccin la pour mën a protéger population yooyu donc jéeg yooyu ci lañ nekk. di di mbir mi nuruwul di mbëkk di dem rek euh, corona ngi fii jàmp na lu ñu am rek jël est-ce que itam. Euh, doxalin bu baax la du lu ñu am rek jël lu am lu baax rek jël la. mais du ñu lu am rek lu jël. loo xam ne hmm. nii càmbar nañ ko ba gis ne lu baax la. te amul lenn lu muy lor te mën naa euh, mën naa ñàkk nit ñi protéger leen ba du ñu am feebar bi. donc loolu fi mu nekk nii dëkk yëpp defe naa ne Sénégal ci dynamique boobu lañ nekk. Mm-hmm. cinq candidats ngeen retenir oon au début est-ce que ci cinq yooyu lañ yem wala am na yeneen ya ca yokku ndax gis nañ ni euh, Spoutnik bi euh, xam ne nañ ni euh, efficacité am su na quatre-vingt-dix pour cent. Spoutnik bi ci cinq yi njëkkoon mm-hmm. jël sax ci la bokk. Mm-hmm. mais dem na yeneen yoo xam ne tamit ñi ngi ñëw. du mel ni Johnson Johnson. Johnson Johnson bi Johnson Johnson bi avantage bi mu am si par rapport ak yeneen mooy boobu benn injection maanaam soo jëlee benn bi jarul rappel donc looy tax. boo amee par exemple million dose di nga mën a vax ñàkk million personne mais yeneen yi boo amee million xaaj bi ngay mën a yegg. loolu am na solo ndax euh, Johnson and Johnson boobu rek nga mën a piqûre benn yoon waaye bu dee yeneen yëpp faaw nga piqûre ñaari yoon mhm. mais fukki million ak juróom-benn ci ay doomi Sénégal ñooy yeewoo ci réew mi 16 millions de sénégalais. 17 léegi euh, léegi 17 millions est-ce que euh, dañuy am 17 millions de vaccins am déet. waaw xam nga vaccin yi déjà ñi nga xam ne dañoo am moins de 16 donc ñoom pour le moment vaccin yi ñooñ taxuleen a jóg parce que gis nañ ne ñooñu de façon essai clinique yi sax defuñu ko ci ñooñ mais aussi gis nañ ne ñooñ feebar bi euh, sonalu leen donc booy euh, xayma da ngay xamee da ngay comme li ñu wax vingt pour cent yi maanaam dix-sept millions yi soo jëlee vingt pour cent yi mu nekk ci trois million cinq cent presque mille personnes ñooñu ñooy li nga xam ne ñooy prioritaire yi maanaam comme li ma ko waxee liggéeykat yi yi nekk ci wér gi yaram ak ñi nga xam ne feebar bi bu leen dalee dañu leen sonal ginnaaw loolu boo parce que fi mu nekk nii nekkaguñu si période boo xam ne dañ ne dañuy xeex corona bi rek mu jóge fi li ñu nekkagum mooy ne nañ fexe ba du lor kenn bu ñu demee ba xam ne léegi nag loratul kenn ñu door nag commencé ñàkk ñi nga xam ne ñoo ci des pour que feebar bi mën a arrêté donc euh, loolu moo tax du ñu tëb tëb rek ne dañuy ñàkk 17 millions de Sénégal dans tous les cas bu ñu ko bëggoon sax fi mu nekk nii mënuñu ko. ndax vaccin yi nga xam ne moo nekk ci àddina bi sax matalewul loolu. est-ce que ci euh, commande yi nga xamante ne def ngeen ko wala ngeen fas yéene koo def est-ce que doo leen jànkoonteeg euh, démarche su réew yi nga xamante ne ñoo ëpp doole ndax daanaka dañuy accaparer euh, dose yi nga xamante ne ñoo gën a disponible ba sax indi na coow ci biir àdduna gi. waaw xam nga loolu moo tax li ñuy wax ko COVAX jóg parce que COVAX coalition la pour tamit am doole bu tolloog doole yi nga xam ne moom la dëkk yooyu. mais dem na sax bu OMS ci wàllu boppam di ngañ ñu nu réew yooyu. donc ce qui veut dire que OMS ci wàllu boppam sax am na ci jafe-jafe. waaw mu am na ci jafe-jafe moo tax mu taxawal ñu taxawal coalition bi parce que aussi tamit dañoo xam ne tamit euh, mbirum jënd jënd ak jaay la. waaye nag euh, réew Europe yi ñoom euh, dañoo génnee dix milliards d'euros jagleel ko defarkatu vaccin yi dimbale leen ko kon bu seddu jotee kay ñoom ñooy njëkk a seddu du noonu. waaw mais loolu laa wax dama ne mbirum jënd ak jaay la. mais aussi euh, bu dee euh, européen dañoo génn xaalis bu tool noonu tamit il faut que ñu am ñun pays yi nga xam ne amuñu doole ñu boole suñuy doole pour mën a xaw a tolloog ñoom tuuti pour bëgg ñoom suñu amee fukk sax ñun ñu am juróom moo tax OMS te taxawal coalition boobu nga xam ne mooy COVAX pour que nit ñi réew yi nga xam ne amuñu doole suñu boolee seen doole ak ñi nga xam ne ñoo leen di jàppale ñu mën a concurrencer un ak pays européens yi c'est vrai pays européens yi ñoom dañoo jël risque risque bi ñu jël mooy avant même vaccin di am dañoo jënd vaccin yi am yu war a am yëpp daanaka parce que xam nañ woon ne gis ñoon nañ ne nii eh, mbas mi doon demee xamoon nañ ne avenir bi peut-être vaccin yi lay doon donc ñu jël seen xaalis jox ko laboratoire yi subvention non seulement dañ leen a subventionné pour ñu def recherche bi mais dañoo jënd production bi même balaa vaccin bi génn donc loolu moo tax biñ ko OMS teelee xam <coughs> mu ne nañ taxawal tamit co coalition pour que su ñàkk yi génne aussi pays yi nga xam ne amuñu doole euh, mën a am ci ci ñàkk yooyu donc euh, loolu moo tax fi mu nekk nii européens yi tamit gisoo booy xool ñi ngi kaas naan sax même ñoom liñ leen promettroon joxuñu leen ko mais aussi li tamit dafa am léegi beneen type de coopération mooy sud sud mooy pays yi nga xam ne tamit <laughs> amuñu doole te mën a am vaccin ñoom ñu ngi copa coopéré tamit ak yeneen pays amul doole pour tamit ñoo ñu mën a am vaccin yi donc lu mel ni Inde boo gisee fii xam nga Inde dañoo am capacité de production vaccin bu important donc même ñeneen ñi bu ñu développé vaccin am usine ba fan yee lakkoon na waaw mais doolu te impacté aussi trop hmm. mais dafa ñoom dañoo am euh, euh, industrie de production maanaam su fekkee ne même Russie yi defar nañ seen vaccin wala anglais yi bu ñu leen ko joxee ñoom dañ koy mën a produire en quantité bu xam ne bu important boo ko gisee AstraZeneca bi boo gisee Serum Institute of India mooy pratiquement mooy deuxième producteur bi donc Inde mi ngi nekk di collaborer ak pays yi nga xam ne ñoo ñàkk doole aussi pour que ñoom vaccin yooyu ñuy def ñu mën cee jot Inde aussi ñi ngi développé seen benn vaccin bu mooy bu baax raat bi donc benn vaccin boo xam ne euh, virus inactivé la donc boobu mi ngi si essai clinique phase 3 vaccin indo indo mais ñoom commencé nañ koo ñàkku ça veut dire que ñoom sax phase trois bi eh, eh, jeex maanaam pour vaccin bi ñu homologué ko parce que gis nañ déjà que xam na efficacité donc ñu mën ko utiliser ñoom seen biir dëkk mais bala ñu ko mën a génne il faut que ñu euh, ñu pare euh, essai clinique yooyu donc boobu tamit mi ngi en développement. Euh, Sénégal ñu xamee woon ko peut-être ci wàllu yenn saa yi wàllum prévision ay réew yi nga xamante ne ñoom la ñu dendal jiituñu ci mbir mi. est-ce que yan yan dëkk yi ñu dendal gine <laughs> ñaata dose lañ fa fàkk. mais ay dose la rek au moins. ñaata. au moins ay dose la parce que déggee ne digg ne annoncé nañ ñàkk-ñàkk man man je mais car vingt cinq personnes lañ fa loolu. je que c'est environ mm. voilà je pense que loolu réglé wul problème mu <laughs> pandémie bi donc Sénégal woon vingt cinq doses defe naa ne njëkkante bi dina bari. mais justement njëkkante boobu dañ koy njort est-ce que vaccin yi euh, naam doyul ci àddina. ñi ëpp doole ci àddina sax fi ñu toll nii ñoom it yaa ngi koy wax sànq neñ li ñu li ñu foogoon moom la ñu jot ci ay vaccin jotaguñ ko ci ci lim bu dugg see fii mbaa ñi ëpp doole du ñu noot ñi néew doole jël vaccin yi pikiiru ko bàyyi ñi nga xam ni amuñu xaalis. waaw loolu de façon si plan bi nga xam ne moom les plans stratégiques bi leeral nañ ko ci wax nañ bu vaccin yi ñëwee. ñan la ñu war a tàmbalee donc mooy cible yi nga xam ne mooy prioritaire je pense que aussi transparence dina am ci ci ñàkk yooyu ba nga xam ne ñi ko soxla euh, ñoom ñoo koy. waaye yéen ministre de la santé du ngeen jël ñàkk seen njaboot ba ñeneen ñi. ah nit ñi si bari ñu ngi naan duñ ñàkk boo moytuwul ñun noonu la ñuy de parce que tamit <laughs> ñàkk yi li ma bëgg wax ku ne ma du ma ñàkku ma que tamit problème bi nekkul ne eh, da ngaa bëgg a ñàkku rek ñàkku parce que ñii wax ñëpp naan duñ ñàkku genn wàll gi ñëpp bu ñàkk bi ñëwee leen ñàkk donc euh, cible prioritaire yi. loolu du ngeen ci wut pexeem ñi nga xam ni dañoo am xel yaar ci ñàkku bi ñaax leen ba nu ñàkku ndax ñàkku bi lu baax la ci xeex coronavirus bi itam. loolu mooy suñu programme de communication maanaam ñun sunu rôle mooy jéem a fexe ba ñàkk yi ñëw jéem a fexe ba ñëpp ñi ko soxla jot ko ba nit ñi am confiance ci ñàkk yi pour nga mën a ñàkku parce que aussi coow li bari na fi gis naa fi yéen chaque fois ngeen invité fi ay nit surtout TFM. ay ñi ñoo xam ne nii dañ ne wax ay scientifique la ñëw di wax loo xam ne amul te li li ci doy waar mooy kenn ko weddi parce que ñoom rek ñooy ñëw toog ci plateau bi di wax euh, te li ñuy wax dara amu ci c'est que le plan scientifique c'est koy wax professeur Lo bi nekkoon TFM waaw professeur Lo ba bon hmm. bu bëggoon wax ci ginnaawam hmm. mais man bëggoon naa yéen nu ngeen ko gisee bëggoon naa non bëggoon naa mu toog hmm. ñu toog comme ça li mu wax ñu farañ fàcce ko benn par benn wax sur le plan scientifique parce que aussi nit ki mën nga ñëw wax en tant que citoyen ordinaire wax sa xalaat loolu la ñuy wax wax sa xalaat mais bu fekkee ne yow da ngay ñëw biologiste la mais li muy wax c'est loolu moo moo si grave parce que su doon nekkoon du biologiste garaawul mais en tant que biologiste ngay wax ci biologie loo xam ne nii c'est pas vrai et loolu ñëpp xam nañ ko ñi koy déglu scientifique yi ñi koy déglu yëpp xam nañ ne li muy wax loolu amul mais mi ngi di ko wax te buy ñëw di ko wax moom mooy toog ñi muy toogal di ko wax amul kenn ku ko ci mën a weddi mais bu toogoon ak benn scientifique boo xam ne biologie la xam na tuuti si biologie dina xam ne li muy wax loolu am parce que aussi c'est dangereux ça veut dire que bu fekkee ne comme li ma la wax ci citoyen ordinaire la buy wax xalaatam loolu garaawul ku nekk sa xalaat nga mais bu fekkee da ngay wax au nom de la science science dafa la imposer nga wax li nga xam ne moo am si surtout si virus si ci euh, vaccin yi nga xam ne mooy vaccin ARN messager yi muy wax naan ñàkk bi buñ ko dugalee ci nit dafay créer virus bi ci biir nit anticorps yi xeex ak moom soit ñu rey ko soit mu persister mais loolu xel nangu ko et puis ñi defar vaccin bi waxuñu loolu et puis même boo tu amee tuuti notion si biologie di nga xam ne loolu en mënul nekk donc te moom mu ne professeur la biologie lay jàngale kon loolu day day waar donc je pense que kooku war nañ ko mën a toog ñu expliquer ko wala boog mu dem gëstu ji parce que aussi scientifique bala ngaa wax dara danga ko war a gëstu. mais est-ce aussi loolu li ko waral peut-être xëy na libéré wuñ euh, yenn ci scientifique yi nga xam ne moom ñoom la seen xam-xam màcc ci wàll wi ni ki vaccinologue yi donte sax biri wuñ fi. ah mais dañ leen woowul. dañ ah, leen kay si man taxaw naa si place nee na kuñ si soxla kenn nag ma wax ma wool ma wool la kenn. wala man ma ñëw toog parce que am na yoo xam ne man xam naa ko mun naa cee wax am na yoo xam ne am na spécialiste yoo xam ne ñoo nekk fii di ko wax mais même biologie dafa am biologie euh, biologie médicale am biologie végétale biologie animale ainsi de suite moom fac science li ma comprendre nekkul ci biologie médicale fac science la nekk donc ñoom affaire vaccin seen ñoo nekku ci am na fii ñoo xam ne loolu mooy seen liggéey donc euh, je pense que bu ñuy wax ci thème boobu waaw su wax ci thème boobu ñoom la ñu war a woo wala boog su si keneen di wax ñu woo leen ñoom it pour que mu contradiction ñu jéem a xam parce que même boo duggee ci internet sax fi mu nekk nii nga xool vaccin ARM yow bi xamul dara sax boo liiree di nga xam ne loolu moo xamul alors que moom bu koy wax da koy wax ak conviction bu ko defee ñi nga xam ne jànguñu wala xam ñu dara mën na leen réeral liñ naan euh, borom borom xam-xam su su daanoo daanee yóbbaale ñu bari te loolu nag. lu lu mm. jar éviter la. Mm. mën nañoo wax vaccin yi moom li ci nit mën a wax bari na mais boo loo ciy wax rek na nekk loo xam ne nii lu la wóor la mën nga ne vaccin yi defar bi gaaw na <laughs> ñëpp ñëpp xam nañ ko <laughs> mais pourquoi mu gaaw aussi ñëpp xam nañ pourquoi mu gaaw. bala ñoo daaneel euh, euh, docteur Ousseynou Badiane euh, yow lañ jënk programme élargi de vaccination bu weesoo coronavirus am na beneen xeetu jàngoro bu def fi loraange ca Tambacounda Kédougou fan yee di pays fièvre jaune. Euh, foogoon na ni dootul am ci réew mi euh, est-ce que programme élargi de vaccination amul tuuti lu mu sooxee ba ñuy toogaat di dégg ay épidémie euh, pays ci réew mi. waaw fièvre jaune c'est vrai wàññeeku na bu baax mais yeggul woon fu ñuy foogee ne dootul am ci réew mi parce que aussi foog ñu xam ne feebar yi dafa am feebar yoo xam ne mën nañ koo def li ñuy wax éradiquer maanaam. fexe ba dootul am mooy feebar yi yooyu pour loolu am mu day nekk feebar boo xam ne nit kese lay dal mais fièvre jaune dafa nekk feebar boo xam ne day doon nit yi di dal bàyyi may surtout xeetu golo yi boo gisee delloo ci ginnaaw ay épidémie bu fi amoon ay cas yu bari bari bari mooy am am ay décès dem nañ ba finalement cas yi rare mais de temps en temps day jekki-jekki ñu am cas li koy indi mooy ne feebar bi du mus jóge ci bàyyi may te dafa am yoo moo koy transmettre benn yoo bu ñuy wax Aedes aegypti tant que mi ngi am ay nit ñoo xam ne ñàkkuwuñu risque bi dafiy nekk donc plus que nit ñi di ñàkku plus que risque bi di di gën a ndaw mais même programme élargi de vaccination chaque jour chaque fois day am ñoo xam ne dañu échappé si programme bi maanaam munoo ne programme bi chaque année ñàkk na Sénégalais yëpp te booy xool kaa yi tamit ay nit ñu mag lañ ñoo xam ne d'un certain âge donc ñu duñu ay xale Euh, booy xool dañoo rëccoon ci campagne bi nga xam ne moom la ñu organisé woon ci campagne préventive yi mais aussi jotuñu ñàkk si yeneen ñàkk yi donc ñooñu chaque année tamit xale yi nga xam ne dañuy rëcc dañuy accumulé wu bu ko defee nag day am ay nit ñoo xam ne ñàkkuñu donc bu feebar bi ñëwee bu duggee dina am ay benn benn yu mu jàpp moo tax nag dañuy gaaw rek ñàkkaat ñëpp rek pour que mhm. feebar bi dem jërëjëf docteur Ousseynou Badiane coordinateur national programme élargi de vaccination jërëjëf Georges Déthié Diop jërëjëf Assou Mbène